ngeen jot suñu da ngeen di abonné fii si Tawfekh Production ngeen mën a jot moo leen vidéo boo mën a xam li dafa gimme rek sëñ Babacar fal ko yàlla xam na ko ku ko sopp rek mu sopp la moom daal nu jaaxle ba benn bés nu commissaire bu bees tubaab mu ñëw di nuyu si sëñ Babacar ànd ak jabar ji ñëw rek Pape Malick yenu loxo yi di jooy ca kaw ñu ni lii lan la mu ni tubaab bu ndaw bi la bëgg ñu may ko ko ah sëñ Babacar ne te booba indépendance amul tubaab yaa fi nekk waaw ñoo ñoom ñooy ñooy buur di bummi waaw mu yenu loxo yi rekk ni fokk ñu may ko doomu tubaab bi nit ñi ku ne di xoolante di waxante di déeyoo góor gi sax jaaxle wallaay ndeysaan ba commissaire bi ni waaye am na lu xew lan la eh, ñu ni ko eh, kii di jooy sa doom bi la bëgg nga may ko ko mu ni ah waaw na nigal nu sàkkante ci pexe moom daal fexe na ba bàyyi xale ba Pam dem ñibbi mook jabar ja xale ba Pam Malick ñuy foo ba dox waaw ñu gàddu xale ba bu jëkk Pam Malick ñu yóbbu ko ca police ba yàlla xam na ko <laughs> góor gi ni lii daal jaaxal na ma moo tax dafa daan toog bu mujj mu triste ni Pam ni mu yëngoo woon ak man gimmi rekk ragal ma loolu jaaduwul ndax ki ma gën a bëgg ci àdduna laa ko tudde kon nag boobu bu ma ko def mukk mukk mukk ba muy euh, perantal bu góor gi dee tukki neex ñëwewuma génn kër gi nag te ma ko bu ko fabee rek téye ko téye ko ba li xale yi def de mu def ko tuur ndox rek mu dal di jël ndox nag wis nii wax kay ni barke la nag maa ngay dem waaw bu ko defee mu jaar ci yoonu gaar ba nag kontaan waaye fekk loolu amul du génn kër gi mukk waaw sëñ Babacar Sy Pape Malick mi da ngay réew ba bëgg toskare wallaay ndeysaan waaw moom kenn du laal kenn du wax waaw moom daal kenn du ko jooyloo ci kër gi kenn du ko wax te moom doxal ma ko ba noppi ni naa ko jàngale alxuraan mës nga gis loolu ni ma ni ma jàngal ko ma di ko jàngal alxuraan léeg-léeg ma domp ko domp bu saf ni ko bëgg wax góor gi de ma ne ko bëgg wax mukk àdduna tukki benn yoon lay ndeysaan moom daal nit ku yiw ci sëriñ kër Si la des wallaay ndeysaan